Edmo Flow maa ngi leen di fey bu baax a baax. Euh, ci loo nekk. maa ngi nii rek sant yàlla ci lan ngeen ne. ñoo ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. waaw kon nag ñu ngi ci jàmm bu baax a baax. tey ñu dajeeg yow ci mariage bi nga xam ne moom di Fata borom talent d'or. Ah, mën nañoo xam lan mooy seen relation boo waral ba nga teew fii. waaw mais ñu bokk benn milieu bokk benn génération mu xewle bésam di bés bu spécial parce que mariage moom ñëpp xam nañ ni vraiment lu spécial la. ñu xatoon trop boole ko suñu programme parce que lu yoon la loolu moo ñu andi loolu moo ñu fi andi euh, pour ñu ñëw tey ji nii bokk ci ñi nga xamante ne si dañuy immortaliser bés bii nii quoi parce que euh, c'est un c'est un jour sacré pour képp koo xamante ne si mu ngi marié wu donc tey ñu ne dañuy ñëw vraiment def ci li ci war quoi. seen connaissance seen rencontre nan la euh, dans le milieu ah je pense que je sais plus en tout cas est-ce que du woon ay dans une chaîne télé que et on s'était vu on a discuté tout ça très positif très relax et tout. Et man, c'est nerveux quoi, tu vois. Et après, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, je vais me marier. J'ai dit, bah, ça, c'est notre jour. Il faut que nous nous goudi goudi. Et tu es waaw borom maîtresse doon na marié. Uh-huh. Ah, nga fi bës de macha <laughs> dañuy ñëwaat ci série bi ndax euh, à part série bi nga xam ne ne joué nga ko ci biir. Uh-huh. mais BA bi aussi. Euh, uh-huh. chanson bi yow ko def. donc mënoon nañ xam euh, dèjà nan la demee woon ba nga dugg dèjà ci série boobu noonu nga réfléchir ñu la. waaw bon ils m'ont un peu dans dans dans que je fais hein, la musique et tout ils m'ont ils m'ont dañoo bëgg ma jouer benn rôle. le rôle de Moustapha ils ont dit que comme je Mustapha dans, dans, dans la vraie vie. Donc ils m'ont ils m'ont contacté. Moi aussi je suis venu, j'ai proposé de mettre mes sons dedans, ñu jubóo ci cadeau et après ñu signé contrat ñu ñu liggéey. Voilà. Ñu demoon ba benn instant sénégalais gëmatuñu woon que Yaxaraki. Waaw. Ah, di jouer nii rek. Même dans la vraie vie bu ñu la invité quelque uh-huh. part yow da nga koy yóbbaale. Moom aussi bu ñu ko invité. Uh-huh. Lan moo tax ngeen doon jouer boobu. Waaw euh, boobu noonu. et euh, les gens voulaient aimer nous voir ensemble et nous aussi euh, ñu jox leen loolu quoi ay nit dañoo ñëw ba sama kër di ma laaj est-ce que Racky ngi ci biir kër gi tout ça ah donc oui parce que dañoo gëmoon ni marié wu nañ am ñoo xam ne ba tey rek ñu ñaanal pour ñu marié donc euh, c'est comme ça parce que ça ça prouve qu'on a bien joué donc voilà. Bédi ak ak jëlal leen ma biir bi déjà jëlal biir bi laa bëgg ngeen loolu waaye loolu biir bi xam nga ne showbiz dafa métti temps dafa loolu nekk ci ay show nekk ci ci ci yeneen affaire boppam ci ah. business ah, ah. mën nañ xam naa ne doo ñu wax ci li nga ne mais mais wax ñu si tuuti rek s'il te plaît parce que instant bi daw nga scène bi euh, musique bi xaw nga ci laax yaa ngi ci leneen tout ce que je peux dire mooy que ni man maa ngi ci entrepreneuriat maa ngi try maa ngi teg ay affaire jëmale ko ci kanam ba léegi ci musique bi ah di jéem a teg ay jéego pour euh, peut-être positionné wu ci beneen côté boo xamante ne si dinañ mën a jàppale booy yi di ñëw incha allah. donc ñu ngi ci kawam bu baax a baax. Mina ku ko xamoon xam ne dafa amoon touche particulière boo xam ne Edmo moom la doon dégager à travers ses fans jamono ji fans yi dañ ko daan cons maximum à 100 pour cent ou bien à 200 pour cent gëj nañu gis seen fans namu nañu sonwu seen fans pourquoi Edmo daal di jékki-jékki def recul bu brusque bi ci li nga xam ne moom moo di musique sénégalaise. waaw mais juste parce que à un moment donné am na projet yoo xam ne bu ñëwee il faut nga jël sa temps nga reculer pour mieux sauter reculer pour projet yoo xamante ne si tamit. am na beneen niveau bu ma jëmee parce que mënuñu di répéter wu tout le temps def ay son def ay clip def ay concert euh, à un moment donné ça devient day tu te on a besoin d'amener une nouvelle touche amener leneen loo xamante ne si aussi même côté xaalis côté lépp businessment parlant dina la mën a yóbbu ci beneen niveau quoi et loolu moo tax ñu reculer ubbi ay structure de ay affaires yoo xamante ne si gars yi dinañ ko gisal seen bopp quoi. mais gisoo ne toog bu yàgg bi mën na tax fan si xaat di dem feneen. même pas amul dem feneen lu neex dafa neex rek yaay booy ku dem di ñëwaat. wiiri wiiri jaari ndaare am na loo xamante ni si. talent daf fi nekk rek quoi xam nga kuy li nga li nga mën mën nga ko amul loo ci ragal quoi ay son day gën a génn chaque jour mais teewul ñun xam nañ li fi nekk te bu ñu bëggee ñëwaat teg ko ci dañ ko ciy tegaat quoi donc ragaluñ loolu. nekk leen ci jàmm quoi all right one